waaw ak yëglu la waaye xam nañ ni fàttewuñ mukk mhm. e, tabaarakallaahu xam nga taalibi day yëglu taalibi day yëglu mhm. xam nga dafa am e, benn nitu yàlla bu mag mhm. ñu di ko wax alaji Umar ñaan mu jógee woon ca njàndaan ca fuuta ba ñuy ñëw Tiwaawan di seet si sëñ Babacar si seen sëriñ mu wax leen ne leen bu ngeen demee na ngeen yëglu taalibi day yëglu dëgg la góor gi bi mu dikkee Tiwaawan ba agsi ci fenêtre u sëñ Babacar si radiallahu taala anhu mu daal di tàmbali yëkkati jàng alquran sëñ Babacar di ko déglu muy jàng di jàng ba yàgg alquran ja rafet nag mhm. sëñ Babacar jekki dal di ni waaw kooku kan la woowal leen ma ko ci tàng-tàng bi ñu woo góor gi mu ñëw toog sëñ Babacar si radiallahu taala anhu dal di saafonteeg moom. dal di koy laaj ne ko waaw yow alquran ju rafet jii moom foo ko jàngee kooku wax ko. mu ni ko léegi damaa bëggoon sant la ñetti kaamili alquran. benn bi nga joxal moo ko Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiallahu taala anhu benn bi nga joxal moo ko Cheikh Alxaaji Umarul Fuuti radiallahu taala anhu benn bi nga joxal moo ko yonent yàlla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama góor gi mm-hmm. comme suñ Babacar day day nit yàlla boo xam ni li yéeme mooy noonu ñu ko daan waxee dëgg la mhm. sëñ Babacar radiyallahu anhu fi mu ne boo toogoon ak moom mhm. buy xool benn place lay xool te ñi toog ñëpp féete ndejoor ak càmmiñ kenn ku ne da yaakaar ni yow lay xool loolu dëgg la mhm. du tagg maqaama la daf caa yeggoon maqaam boobu la ñuy wax fii maqadi sidqin inda maliki muqtadir boo ca eggee soo toogee doo raf te sooy xool benn place ngay xool te nga ngay xool ñëpp kenn ku ne day yaakaar ni moom rekk ngay xool maqaam la góor gi dal di daw dem toog dal di jàng benn kaamil ñaar tàmbaliwul ñetteel bi xel mi daal laxasu ci sëñ Babacar Sy radiyallaahu taala anhu ba moom xamatul lu muy def mu bàyyi fa beneen bi daal di daw ñëw ngir parce que nit yàlla mel noonu dëgg la boo taqalikook moom ci tàng tàng bi da nga koy nammaat da nga koy nammaat ci saa si <laughs> góor gi bi mu dikkaatee comme suñ Babacar dafa doon mag mu yaru doon mag mu teey doon mag mu dal doon mag mu xam yàlla suñ Babacar moom yar bee ëlëm ñëpp ah. wax dëgg yàlla dëgg góor gi bi mu dikkee ndeysaan daal di suñ Babacar daal di ni ko canam daan waxee noonu kaamil yi àgg na ah, wax ji dafa sell ba waxam sax da daan sell mm-hmm. moo tax euh, Cheikh Alhaj Mouhamadul Habib radiallahu taala anhu soo mosaana tudd sëñ Babacar si day jóg taxaw ba pare dal di ni saaxibul ixlaas allahu akbar mu ni sëñ Babacar lu mu am ci yàlla sell ko ko may da nga wax ci boo tuddee sëñ Babacar si radiallahu taala anhu day jóg dal di ni saaxibul ixlaas moom maam Habib wallahi Cheikh Alhaj Mahamadul Habib allahu akbar mu ni sëñ Babacar si lu mu am rek sell ko ko may est-ce que aywa góor gi toog sëñ Babacar radiyallahu taala anhu daal di koy laaj ni ko waaw kaamil mu toll bu daal di ni ko egg na sëñ Babacar daal ko egg na mu ni ko waaw mu ni ko alhamdulillah bon toogaat ba yàgg jékki-jékki ni ko ah kaamil yi àgg na mu ni ko àgg na kay ni alhamdulillah bon ñu toogaat ba yàgg sëñ Babacar ni ko ah kaamil yi àgg na mu ni ko waaw mu ni ko ah kon nag alhamdulillah waaye day لان رك مو متخوى جاخل موي شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه المجاهد الكبير ليغ لا رومب في اك نار غورم تنينا جوتو غول تي بوسام رك غور غي تود يالا يوخ لوغول سيرين امنا سيرين دغ لا كوكو ناك موي دوناي شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه من ورا تاي وقتاني تي ميندم الحاج منصور كون نيغي نويو بو باخ ناك seen doom jooju nga xam ni tey lépp lu mag ñu yoroon mm-hmm. sob na yàlla mi ngi ci ay loxoom li ñuy wax ci moom yépp lu du lu ñuy créer c'est-à-dire mm-hmm. bee